ismi ilaahi ma jugu di way sayyiduna muhammad man maa ngi jug di way yonent bi sayyiduna muhammad ismi ilaahi ma jugu di way sayyiduna muhammad man maa ngi jug di way yonent bi sayyiduna muhammad li tax ma jug di way yonent سيدنا محمد شوف الجدال موما صنال والله سيدنا محمد لتخم جبدي وين تبي سيدنا محمد شوف الجدال موما صنال والله سيدنا محمد منا مجمنة مكو سيدنا محمد كفل جسخ ألم نما بالله سيدنا محمد منا بمجمنة مكو سيدنا محمد كفل جسخ ألم نما يا مين لين لوكين لومين الغور غور ني امين درا ام نين تولا واي جيجين نيك ديم ديكرم با امو يا ديكرم ساي وسيني يالا جيجال با بكارام loolu góor amu ko kon na ngeen sàmm li leen yàlla dégg te dee ko te xam ni kenn ku nekk li la yàlla sëb ajjana ajjana as gor nag day rek rek nag lu tiim lu neex di ci lekk ba sa biir fees su la way yu tedd waree di sa bàyyi ñu muy toog sama taawi bàyyi la ko da daan wax ni maa ngi leen di dégg bu ngeen seet bu leen ko laaj toog leen bu dee toog ay wax toog leen tàmm ko lu mu leen jox seen bu dee yendu yendu leen lu mu leen jox sedd ak gor du laaj du ñaan ak gor du laaj du ñaan nit koo xam ni foo ko fekk man de jàpp naa ne diggante sëriñ ak taalib lu jox xajam ci sëriñ si la li xam ne boo demee mu jox la addiya wàcc ay lalam jox la booy dem nam amul dara la soppi njëlam deere yanu ko yëpp su yàq seen diggante bu ko yàq bu bu faatulee sax yanu ko yëpp di jox ba doyalul bu faatu ma yanu yëpp ngir yaakaar yërmande loo ko wan jub ak mbaax wanoo ko li nga war yàlla yàlla sàmmal ñu leen diggante taalibe ak sëriñ nag bu kenn ku ne seetee sa morom mbaax doo ko fale na ngeen fonk seen a fonk seen i bàyyi bari na nit ku lay nii sa dara nan la ñii dañ lay nax bañ la waxee baatu nax rek lañ teg booba lay nekkee ay naxekat yàlla rek naxul kenn nit tat dañ ko nax ba jëmee lu baax ngir bëgg mu jëriñ am sa way jur nag muy siyaari kër seen Seydina Limaam mbaa kër seen Tuubaa mbaa kër seen Janaw te nga dem wàcc ko fa loolu tax ayut waaye nag ormaal ko ay am na solo sama bàyyi am na taalibeem boo xam ne doomam daa murit mu nangu cantine ba génne ko sama papa bàyyi ba guddi mu taal otoom dem ko moo diw yow li la namte ci man ci yàlla sa doom dem sa maam Sëriñ Tuubaa nga génne ko delloo ko bitik bi damay ko ko sa papa xam nga lu doy nit nit fu nekk na baax rek baax gi doo nga am njëriñ koo mën di nekk sa bàyyi fu te baaxoo amul nekk na baax bu am sikk bu fekkee par par loog nangam ak nangam nag kooku moom ku mu dal jigéen baam sëriñ baam maam sëriñ Rafal moom suñu ñu jaayee bàyyi bokk benn sama nijaay bàyyi maam Demba Ngone bi daan ànd ak bàyyal ba maamu moom lañ taal sooy bi mu mar wàcc dem góor moom am sama papa lu ko jur. xoolal maam Cheikh Fall jógee dégg Xaadimu Rasuul dem di ko wër ba mu tarbiya yaroon ko wax muy dem ba yàgg mu ceru garab bu fàq wat mu rombaat ko mu lax mu rombaat mu wow koom mu ne li may doyee Sëriñ Tuubaa mën naa ko commencé jàngee fi yàlla dindi garab rey ko ba mu man Cheikh Fall yàlla dina ma mu felli cer bi ko ba mu jekk mu yett ko nas si benn buub di ko gegonoo a fàtte dee mais dooru bi mu gisee Xaadimu Rasuul ci Mbàkke Baari mun ko seebra am na nekk sa baay mun ko métti yi bañ koy wër ba fekk ko mun ko seebra nga noonu am nekk sa baay métti yi mu ni baax Mbàkke man xam ne li nga bëgg ku ma jub ci yàlla rek laa bëgg yii dong nga yee mu di ba yaral waxam gi ba mu àgg ci borom moom mu neex maam seebra nanguwul faa jóge moo tax kenn mën laa nekk ni ci maam seebra faa dugg kalimatu laa ilaaha illallaah ku ko tax koo dem àjjana bu ko taxoo moom dem àjjana di nga dajeeg sa borom kon da doon def istixfaar tey julli ci yéen gis ku nekk ci dëkk bi te jàppe bari na day jii de dinaa ko ah, de demoon ci jàkka ja te jiw moomee nga wax demoon ci jàkka ja day yeewu jiite waa kër yow boo yóbboo gi ni wat si nelaw nga def ci jàkka ji ñëw fekkaa ñu nelaw koy xas sa bopp koy xas te kenn ku yaa demal sa bopp jàkka kon nañuy wax lu ñu xam am na ñoo xam ne feebar a mun ñoo julli jàkka boo xamul lu ko dal na boo amee looy def sa bopp ba naw ko boo xeet dangaa réere yàlla noo ñaan ci yàlla yàlla yàlla defal leen sugura defal leen tawfeex defal leen ngëneel am na lu xew tam ci jamono ji kenn ko ne suuf nga yor yaa ngi koy di jaay lu ngeen jaay jaay bàyyi li mu leen may nit ñëpp ci suuf si lañ jëm nit ñëpp ci suuf bu am la ko boo ñëwee dara ba nga fekk nga ñew rat ko ba set ñoo ñëw ni ndóot ah ngay def ci nga ginaaw lo loo foogul de min nit genn ci génn keur ta kër taal seen di fay ni ñi ay million suuf di ko jël di ko def seen i suuf ci suuf buñ toogee tuuti morsalé ko jaay ko di ni la ko jaay bu ngeen demé wut dem ci yu yaak këru famille day yàq mbokk man tay ñi ma bokkal leen baye ku nekk sama baye mako moy mooy ni ma tuddee mu doon tay du ma bokk ci ñu xaar de sax oto jaga di ma jege ma ne ko ndax lan mun baax doo fa mi de yàqu mbokk léegi ku ne ak fa nga takk mu ñëw jikko yu duñ bokk te ko yor koo dimbali wu ñu njabootam dong la yor te kenn ku ne nag sa njaboot waaye Sénégal tàmm nañu gore ku am ci kër jéem a yor ñëpp te looloo nekk dakk leen kër yu yaatu ku mën a defar kër daggal leen ko muy nas nasi ba mu ne dajaloo ci kër baaxul sant yàlla te kenn ku ne da ñaan yàlla njaboot te bari na loo xam ne bu ko sant yàlla jox la loo yàlla du tas yaakaar ñoo ngi jégalu kàddu yàlla wér mi yor wërsëg te di ko maye yàlla leen ko yàlla may ba seen i waajur ak seen i njaboot di leen xamal ni àdduna dund ku sa nawle ba nga bokkal ngeen sëpp wëllëri wala leneen nga mën a gis ci moom si tere ko ko bu gisee ci yow njub dana la laaj lu ko a mag ñi loolu dong lañ fi nekk woon kon yàlla yàlla sàmm leen yàlla yàlla musal leen te comme ziar yi day yàqu ak toogaay yi ñu jéggalu bu guddi gi amin yaa rabbi yàlla boole ñu amin yaa rabbi yàlla boole ñu amin yaa rabbi yàlla boole ñu amin walaay walaay yéen a moom lépp jërëjëf na ko ko jërëjëf wax ci baatu olof ñu doog a ñaan ñaari nit buñ jëmbatee garab ki yor rasuwaal ndoxam bu tàng génn di suuxal garabam ki yor bu sedd bi di suuxal garabam ku yaakaar fet ki yor lu fet ki yor lu tàng mooy jikko ju bon nit fu mu nekk ci jikkoom da koy jéem a dindi sànni toro yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du bàyyi bokkam di sànni ay toj mbay la nay gas kat yàlla da ko ne waxal li nga bëgg ma boole tundi mun ko dañ maa xamagul rek kon léeg-léeg nga am mbaax sa sa mbokk du ko xam boko boko toppé ak ya ko tok yalla yalla jéggal ma ci salat ci fay Thank yan yàlla wattu leen wattu njaboot dafa mën nga wéere woon ñëpp yàlla bëgg la baax xam naa ne wér kontaan ci baaxura من تبي سيدنا محمد القرآن تكي ينتبي سيدنا محمد alquran taar yonent bi sayyiduna muhammad amoo maas amoo morom billahi sayyiduna muhammad yaraw ñi yaraw ñi woon billahi sayyiduna muhammad amoo maas amoo morom يروني يروني بالله سيدنا محمد يوم القيام ياني رمو بالله سيدنا محمد ياني تيرال ياني دقل بالله سيدنا محمد يوم القيام ياني رمو سيدنا محمد ياني تيرال ياني دقل بالله سيدنا محمد يولا يا كارتي الدين سيدنا محمد يولن يكر الآخرة الحمد لله Ndineen TV leeru diine ci Ndineen TV leeru diine